soxna Soda Mbacke soxna Soda Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1912 ci dëkk bii nag maamam nag goroon di sëriñ Touba Seexul Xaddim di Touba ci dëkk bii nag di Touba nag la feeñee jamono nag ci atum 1912 muy doomu soxna Assuloo ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke bi mu feeñee jamono waajuram nag mu dul faadal Mbacke mi ngi ko fayee nag rakkam jum bokkal nag waajur wu góor ak waajur wu jigéen di soxna Mareema Kunta bintu Seexul Xaddima soxna Mareema Kunta moomu nag la Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nag fayee jii mu jël nag turam wii nag di sooda moom soxna sooda mbàkke nag am na ñu bokkal cheikh mamadul faadal mbàkke ak soxna assuloo ñu mën cee ràññee nag magam ja soxna mbeen mbàkke bintu soxna assuloo bintu dul mamadul faadal mbàkke seen rakk ja sëriñ moodu maamun mbàkke ibnu soxna assuloo ibnu cheikh mouhamadul faadal mbàkke ak moom soxna sooda mbàkke bintu soxna assuloo bintu cheikh mouhamadul faadal mbàkke ñu wax leen nag ñii mu bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñan magam jii nag di soxna mbeen mbàkke faliilu cheikh Mouhamadul Faadal Mbacke magam soxna Assu Mbacke Kajoor nag lu ko tuddee ci 1908 nag la feeñ jamono soxna Faat Jaxate mi waajur Serigne Touba Cheikh Saliou mbàkke nag lañ ko jébbaloon moo ko yar moo ko tarbiya moo ko yóbbu itam nag mu dem kër maam Serigne Bousso moom Serigne Cheikhu Bousso nag lañ ko jébbaloon mook maam Serigne Bousso nag am nañ nag ñaari bant muy soxna Faati Bousso ak soxna Xadi Bousso soxna Mbeen mbàkke Falilu ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy maam Serigne Bousso lañ ko jébbal nag Serigne Mortala Fall Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul ak benn bant lañu am muy sëriñ ndaam abdourahman faal seen càmmiñ lii nag di sëriñ du maamun mbàkke di doomu soxna assuloo ak cheikh mohamadul faadal mbàkke bi mu tolloo nag ci jàng xam la ko waajuram nag cheikh mohamadul faadal mbàkke yóbbu woon nag ci suuf sii nag di mbaakool mook doomu baayam ba sëriñ cheikh ummi mbàkke moom cheikh mohamadul faadal mbàkke ñoom ñaar nag ñoo nekkandoo woon nag ci suuf soosu nag di mbaakool bi ñu nekkee foofu nag fi ñu doon jànge xam-xam fi la sëriñ moodu maamun mbàkke nag génnee nag àdduna bi mu génnee àdduna nag ci suuf soosu nag di mbaakool la sëriñ bi leen doon jàngal nag laaj nag doomu baayam bii nag di sëriñ Cheikh Oumy nag doon xamal kooku nag di ko wax ne daal rus naa dem nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di ko xamal ne nag sëriñ Modou Mamoun Mbacke nag génn na nag adduna moom daal li ciy pexe tam xalaat ko mooy ñu jële ko fii nag ci mbaakool yóbbu ko nag Touba jébbal ko nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke booba nag dañoo yanoo nag sëriñ Modou Mamoun Mbacke nag foofa ba ci Touba li sëriñ Cheikh Oumy nag waxoon mooy na ko ñeenti nit nag yanoo fii ñu jëm ak moom nag Touba mu yónni yaru fasa ngir xamal nag dëkk bi leen gën a jege na leen nag am na nag kuñ fi yanoo jëme ko Touba nañ waajal nag ñii yanoo nag sëriñ Moodu Maamun suñu egsee ci ñoom nag ñu mën a awu ñooñu nag pour demaat nag ci beneen dëkk waa dëkk booba itam nag buñ ca tollee kenn itam war faw fas ngir wax nag beneen dëkk nag bi ci kanam ne itam nag nañ ko waajal noonu daal lañ ko toppoo nag ba indi ko tuubaa ñu jébbal ko nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mu jébbal ko boromam nag ci armeer yu mag yi sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moomu doomu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke la ci atum 1952 nag la fi ko ginnaaw buñ jébbalee sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag boroomam nag ba noppi la sëriñ Fàllu Mbàkke nag doon xamal soxna Mbeen Mbàkke Faliilu sa càmmiñ bi nga amoon di sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag génn na nag àdduna jëlal sëriñ Cheikh ummi Mbàkke mi muy sa càmmiñ sëriñ Cheikh Oumy nag moo nekk nag càmmiñ soxna Mbeen Mbàkke ak soxna Sooda Mbàkke nag ba ni mu génnee àdduna moom itam na ku yéeme la woon nag moom doomu mu dul Faadal Mbàkke boobu ku xamoon itam nag làngu yu takkoo takkoo takku la laataa nag muy génn àdduna ku teel a dem màkka xel la itam nag ci njabootu cheikh dul faadal mbàkke gi laataa mu fiy bàyyikoos nag samp na kër ñu boole kook soxna faati moor faal moom sëriñ moor taala faal benn bant nag lañ amoon doom jooju itam nag ñu amoon wut nag ak waajuram nag ak génnuk àdduna sëriñ cheikh ummi moom itam nag doomu soxna ummi mbay la moom maam cheikh mbay bu luga mu mamadul faadal itam nag ku ko fonkoon la ba fobaan na doomam sax tudde ko ko muy sëriñ cheikh ummi mbàkke nag mi fi nekk sëriñ cheikh ummi mbàkke moomu nag moo jële sëriñ moodu maamun mbàkke nag foofu mu nelewe nag ci mbaakool indi ko nag ci tuubaa jigéenam bi nag di soxna Sooda Mbàkke doomu soxna Assu Lo la soxna Assu Lo doomu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo la ak soxna Aminta Mbàkke sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ci jàmbaar toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim nag la bokkoon moo jàngal itam nag lu ëpp nag ci njabootu sëriñ tubaa Seexul Xadim gi lu takkoo takku itam nag ci njabootu sëriñ Touba Seexul Xadim gi ci dëkk bii ko sëriñ Touba Seexul Xadim dëloon itam nag fa lañ feeña jamono di Ndaam Daaru Halimul Xabiir soxna Aminta Xari Mbàkke la rakku maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la soxna Faati Isa Jóob nag moo ko meññi moom soxna Aminta Mbàkke nag biñ ko jébbalee sëriñ Ndaam Abdourahmaan loo am na nag ak njaboot nag ak sëriñ Ndaam Abdourahmaan loo njaboot gi mu am ak sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo nag ñu man cee ràññee soxna Aminta Lo bintu sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo bintu soxna Aminta Mbàkke soxna Faati Lo bintu sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo bintu soxna Aminta Xari Lo bintu sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo bintu soxna Aminta Mbàkke sëriñ Moodu Lo ibnu sëriñ ndaam abdurahmaan loo ibnu soxna aminta mbàkke soxna awa loo bintu sëriñ ndaam abdurahmaan loo bintu soxna aminta mbàkke soxna roqee loo bintu sëriñ ndaam abdurahmaan loo bintu soxna aminta mbàkke soxna buso loo bintu sëriñ ndaam abdurahmaan loo bintu soxna aminta mbàkke soxna mareema loo bintu sëriñ ndaam abdurahmaan loo bintu soxna aminta mbàkke njaboot gii nag la soxna assu loo mi ngi jébbal nag cheikh mamadul faadal mbàkke bokkal soxna aminta mbàkke ak sëriñ ndaam abdurahmaan loo ngir xamale leen ak njabootuk soxna soxna Aminta Mbacke gii ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo nag ñoom ñooy ñan doomam jii nag di soxna Aminta Lo moom sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ak soxna Aminta Mbacke bi mu matee dem kër Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moom xaadim rasool nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mariamu Mbacke sëriñ Mbacke Madina ak kam seexandooloon nag soxna Daba Mbacke soxna Faati Lo moom soxna Aminta Mbacke ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bi mu matee dem kër sëriñ Amar Fall Mbacke moom sëriñ Mbacke Kajoor nag lañ ko jébbaloon sëriñ Amar Fall Mbacke mook soxna Faati Lo nag am nañ ak njaboota mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke sëriñ Omar Mbacke sëriñ Maam Cerno Mbacke sëriñ Moodu Faati Mbacke soxna Xari Lo moom soxna Aminta Mbacke ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bi mu matee dem kër sëriñ Mbacke Ramata nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mbacke Ramata itam nag am nañ ak njaboota mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Xari Mbacke soxna Mbacke Xari sëriñ Abdou Xari Mbacke soxna Aminta Fall Mbacke Xari ak sëriñ Moor Xari Mbacke soxna Roqaye Lo moom soxna Aminta Mbacke ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo bi mu matee dem kër sëriñ Modou Faty Alé gay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ du Faty Alé gay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Faty Gaye ak soxna Aminta Gaye soxna Bousso Lo moom soxna Aminta Mbàkke ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo bi mu matee dem kër sëriñ Ibrahima Mbàkke Fari nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibra Fari Mbàkke nag benn bant lañ am muy soxna May Mbàkke Guubee soxna Mariama Lo moom soxna Aminta Mbàkke ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo Serigne Touba Xaadim Rasool nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Assu Mbacke soxna Daba Mbacke Serigne Modou Abdoulaye Mbacke ak ñeenteelu doomu soxna Mariama Looba bi mu feeñee jamono nag laataa muy am tur nag la génn àdduna soxna Awa Lo moom soxna Aminta Mbacke ak Serigne Ndaam Abdourahmane Lo jot a dem kër laataa muy dem kër nag la génn àdduna Serigne Modou Lo moom soxna Aminta Mbacke ak Serigne Ndaam Abdourahmane nag jot a samp kër laataa muy samp kër nag la génn itam nag àdduna Mm. njaboot gi nag ñooy njabootuk soxna Aminta Mbàkke ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo soxna Mariama Lo ak soxna Roqee Lo nag ay seex lañ soxna Assu Lo ak soxna Awa Lo itam nag ay seex lañ soxna Assu Lo nag lañ jébbaloo nag mu dul faa dal Mbàkke mu am ci nag soxna Mbeen Mbàkke Faliilu sëriñ Moodu Maamun Mbàkke Faliilu ak soxna Sooda Mbàkke nag mi ñu fas yéenee waxtaane tey jii soxna Sooda Mbàkke bi mu feeñee jamono waajuram nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke rakkam nag soxna Mariama Kunta nag la ko tuddee mu bokk nag ci turandooy soxna ba kunta yi ñu koy wooye nag tur wii nag di sooda waajuram nag cheikh mamadul faadal mbàkke turandoom nag soxna mariama kunta nag la ko joxoon ci loxoy soxna mariama kunta la soxna sooda mbàkke mi nag nekk ba ni soxna mariama kunta nag génnee àdduna soxna sooda mbàkke nag dellusiwaat nag ci loxoy waajuram cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal nag wéyal nag am njàngam ba mu mat a dem kër mu jébbal ko nag sëriñ moodu may mbàkke mi nekkoon nag taawub cheikh masamba mbàkke sëriñ moodu may mbàkke ci dëkk bii nag di mbusoobe nag la ko yóbbu woon di suuf soo xam ne nii nag moo ko gor mu nekk nag ci wetu dëkk dëkk bi nag di Kéré Ndaw foofu sax nag fa la doomam ji nag feeñe jamono di soxna Moominatu Mbàkke moom soxna Sooda Mbàkke mu nekk nag ci loxoy sëriñ Moodu May Mbàkke moom ma Masamba Mbàkke moom Maam Mor Anta Sali Mbàkke soxna Sooda Mbàkke nag mook sëriñ du May Mbàkke benn bant nag lañ am muy ki sëriñ du May Mbàkke fayee nag jigéenam ba soxna Moominatu Mbàkke nag bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima ginnaaw bu fi sëriñ moo du May nag bàyyi ko lañ fob nag soxna Sooda Mbàkke mi jébbal ko doomu sëriñ Seexu Buso ba muy sëriñ Ousmane Buso mook amuñu nag ak kër yooyu nag la dem benn bant boobu nag la fa am muy soxna Moominatu Mbàkke miñ fayee bàjjanam nag soxna Moominatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi mu matee dem kër sëriñ Amidun Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke moom maam Cheikh Anta Mbàkke nag lañ ko jébbaloon nag ci Daaru soxna soxna Moominatu Mbàkke am mook sëriñ Amidun Mbàkke nag moom sëriñ Moodu mun Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñi man cee ràññee nag soxna Assu Mbàkke mi sëriñ Am Mbàkke nak faye woon nag waajuróom wu jigéen wa soxna Awa Buso Mbàkke mi mu faye woon nag waajuru Abdoul Fadal Mbacke soxna maam Assa Mbacke mi mu woon nag rakku waajuram wu jigéenu sëriñ soin bu Mbacke mi mu faye woon sëriñ soin bu Mbacke moom xaadim rasul sëriñ woon nag waajuram wa sëriñ Jiili Mbacke mi mu faye woon nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke sëriñ Seexuna mi mu faye woon nag waajuram wa xaadim rasul ak sëriñ Saaliwu Mbacke di ki mu faye nag sëriñ Saaliwu Mbacke ibnu sëriñ Touba xaadim rasul njaboot gi nag la sëriñ Amidun Mbacke moom sëriñ Modou Mamoun Mbacke am ak soxna Moominatu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke soxna Soda itam nag nekkit nag koo xam ne ni ku Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doy loola faboon na ay doomi boppam nag jébbal ko ngir mu yar leen ñu man cee ràññee nag soxna Ami Cheikh Mbacke bintu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke soxna maam Mati Mbacke bintu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke soxna maam Awa Mbacke bintu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke soxna maam Mati Mbacke Ndaama bintu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke muy ñaari soxna maam Mati Mbacke yoo xam ne Cheikh Mamadou Fadal moo leen meññi soxna Soda Mbacke nag li leen joxoon nag ngir mu yar leen soxna Ummi Mbacke bintu Abdoulahi Mbacke borom dër bi Cheikh Mamadou Fadal itam nag moo ko joxoon soxna Sooda nag ngir mu yar ko soxna maam Anta Mbacke moom sëriñ Modou Xabbaan Mbacke sëriñ Abdoul Khoudous Mbacke moom sëriñ Amar Fall Mbacke foboon na doom nag jim faye soxna Sooda Mbacke nag joxoon ko ko sëriñ Moor Xari Lo di doomu ndayam moom itam nag foboon na doomam jim faye soxna Sooda Mbacke itam nag joxoon ko ko sëriñ Amdi Yaasin Fall foboon na ab taawam nag tudde ko soxna Sooda ñu nekk nag ci këram ci biir soxna yi sëriñ fàllu dëkkoo woon teñ nekkoon nag kër soxna sooda mbàkke ñu man cee ràññee soxna mbeen loo doomu sëriñ seex loo la moom sëriñ mouhamadou loo sëriñ fàllu moo ko dëkkoo woon waaye soxna sooda mbàkke nag la ko joxoon am na ca benn bant muy ku ñuy wax sëriñ seexuna mbàkke soxna baali loo doomu sëriñ moodu loo la moom sëriñ ndaam abdourahman loo soxna baali loo mi cheikh dul faadal mbàkke nag moo ko dëkkoo woon moom itam nag soxna sooda itam nag la ko joxoon soxna baali loo mii moom sëriñ moodu loo moom sëriñ ndaam abdourahman loo keroog biñ koy jébbal cheikh Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom lañ booleeg sëriñ Basiiru Lo mii nekk nag xalifa sëriñ Ndaam Abdourahman Lo jamono ji jox Cheikh Mamadou Fadal Mbacke baneen soxna nag bu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke dëkkoo woon te joxoon ko doomam ji nag di soxna Sooda Mbacke mooy soxna Nday Buso ñu gën koo xam nag ci soxna Faati Xari doomu sëriñ Ceerno Xari Ñang Buso la Cheikh mu Fadal itam moo ko dëkkoo woon waaye soxna Sooda itam nag la ko joxoon mu nekk nag ci biir këram ak ku ñuy wax nag soxna Faati Jeng doomu sëriñ Moor Jeng la bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon nag Cheikh Mamadou Mamadul Faadal moo ko dëkkoo woon soxna Sooda Mbàkke nag moo ko yoroon nag ci këram ku Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bëggoon la ku Cheikh ma Faadal Mbàkke nag nawloo woon la mook magam nag soxna Mbeen Mbàkke Faliilu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag defoon na leen nag ci boppam ba foboon na soxna Sooda Mbàkke lépp loo xam ne nii nag Sëriñ Fàllu da koy jëfandikoo ci bëccëg gi muy añ bi soxna Sooda nag moo koy togg nag ci loxol boppam lépp loo xam ne nii itam Cheikh Mamadul Faadal da koy jëfandikoo ci guddi gi di ab reeram soxna Mbeen Mbàkke Faliilu nag Mamadul Faadal yii ñu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag bëggoon nag te fonkoon leen la moo tax sax bi biñ ko jébbalee sëriñ Moodu may Mbàkke mu nekk fa nag diir bu yàgg yàgg yàgg nag amul nag ab bant biñ ko yëgalee nag waajuram Cheikh dul Faadal Mbàkke moo wax ne nag dana am bant moo taxit nag benn bant boobu sax nag la ko yàlla dénk muy kiñ faye nag soxna Moominatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadiima bëgg nag gu ko sëriñ Fàllu bëggoon bi mu nekkee nag kër magam di soxna Mbeen Mbàkke Faliilu sëriñ Fàllu itam nag moo sàkku itam nag ci moom mu ñëw dëkk nag ginnaaw kër seex moomu dul faadal mbàkke moom turandoo soxna mariama kunta wi lu takkoo takku nag ci ay doomi baayam nag tudde nañ ko doom ñu mën cee ràññe nag sëriñ aboo mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na soxna sooda mbàkke doom sëriñ jiili mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na soxna sooda mbàkke doom sëriñ abdul fata mbàkke ibnu mu dul faadal mbàkke tudde na soxna sooda mbàkke doom sëriñ abdul xuddoos mbàkke moom sëriñ amar faal mbàkke moom sëriñ mbàkke kajoor tudde na soxna sooda mbàkke doom sëriñ siidi mbàkke bu daaru salaam tudde na soxna sooda mbàkke doom sëriñ moodu xari soxna sooda mbàkke doom sëriñ ibra njaay tudde na soxna sooda mbàkke doom soxna sooda jeng soxna sooda siise ak soxna sooda njaay soxna sooda jow soxna sooda faal moom sëriñ amdi faal soxna sooda ja soxna sooda ture soxna sooda buso moom sëriñ usmaan buso soxna sooda buso moom sëriñ useynu buso soxna sooda kan soxna sooda ndaw soxna sooda seen soxna sooda jóob moom sëriñ alaaji jóob ak maneen soxna sooda jóob soxna sooda njaay moom sëriñ moodu njaay hasan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu ko tudde doom waajuram cheikh mamadou faadal mbàkke itam nag doyloo woon na ko dëkkoon ba fab na nag soxna yum dëkkoo woon joxoon leen nag soxna Sooda Mbàkke nag ngir nag ñu nekk ak moom ñu man cee ràññee nag soxna Mbeen Loo moom sëriñ Moodu Loo Dagana soxna Baali Loo bu Sura soxna Faati Ñang moom sëriñ Moor Ñang ak soxna Ndey Buso Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag faboon na ay doomi boppam jébbal leen nag seen mag ji nag di soxna Sooda Mbàkke nag ngir mu yar leen ñu man cee ràññee nag soxna Ami Cheikh moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke soxna Maam Mati Mbàkke Xadama moom Cheikh dul Faadal Mbàkke soxna Maam Mati Jaara moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke soxna Njaasaan moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mu nekkoon nag yarkat nekkoon itam nag tarbiyakat ba ni mu génnee àdduna ci atum 1982 turandoo soxna Mariama Kunta wi di soxna Sooda Mbacke nag mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci Touba nekk nag ci ginnaaw kër Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ci bisub gaawu fukki fan ak benn nag ci weeru baraxlu ci atum 1402 nag ci gàddaay gi gaawu fukki fan ak benn nag ci weeru baraxlu ci atum 1402 nag ci gàddaay gi dëppoo nag muy samedi 5 juin 1982 1982 samedi 5 juin 1982 ñu yëgal ko nag rakkam ja sëriñ Moodu Moustapha Mbacke Faliilu yëgal ko nag waajuróowam wa sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag moo sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khader Mbacke ngir mu taxawu nag turandoo soxna Mariama Kunta wi di soxna Sooda Mbacke ñu jébbal ko boroomam ci armeer yi ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi moom soxna Sooda Mbacke nag ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum ba nëgëni taawam ba di di doomam ja di soxna moominatu mbàkke bintu sëriñ bin bintu sëriñ du may mbàkke moo fi nekk nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te yàggal ñuy ñaan nag boroom nag guddal aw fanam te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom boobu nag soxna sooda mbàkke ak mbooleem nag ñu mu séqal soxna sooda mbàkke soxna sooda mbàkke nag am na bis nag soxna sooda mbàkke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci luñ tuddee ak màggal bis bi nga xam ne ci la génnoon àdduna du fukki fan ak benn nag ci weeru baraxlu ñi nga xam ne nii nag moo leen yar ñooy ay turandoom ànd ak ñi nga xam ne nii itam nag soxna si moo leen yar nag ci biir këram ñoo jàppoon nag bis bii ne nag war nañ koo fàttaliku nag seen turandoo wa ak seen bàjjen bi nga xam ne ni nag moom moo leen yar di soxna Sooda Mbàkke ñu jàpp nag bis bi soxna si nag génnoon àdduna nag di yendu nag ci këram di ca wàcce nag ay kaamil yendoo yendoo cee itam nag bernde ñu demee nag ba taxawal sëriñ ma Masamba Mbàkke nag ab bis di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru baraxlu ci jàpp ne bis bii daal ñuy fàttaliku nag Seex Masamba Mbàkke war nañ sooda ñu bàyyi nag bëccëgug fukki fan ak ñu bàyyi nag bëccëgug fukki fan ak benn nag ci war ñu bàyyi nag ñu bàyyi nag bëccëgug fukki fan benn nag ci weeru baraxlu jàpp ko nag jàpp ko nag bëccëgug ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru baraxlu boole soxna sooda nag ak sëriñ Masamba boole soxna sooda nag ak sëriñ Masamba nag benn bis ñu ñaan ca turandoo soxna Mareema Kunta wa ki feeñe woon jamono ci dëkk bu sell bi nag di tuubaa ñu gënoon koo xam ci soxna sooda Mbàkke bintu Cheikh dul Faadal Mbàkke yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te nag ci barkeem jafe-jafe réew mi itam na yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay mbàkke amiin